képp next Money Transfer ñu ci and ak yéen ak kay xaliss bu gene ci Gambia mën nga jot xaliss fépp fi nga ne baye ko carton be na te do ci am ben jafe-jafe wow mën nga jot baye ko ci sa ay mboka ak am di jama nek ci UK Europe US Canada Switzerland ak adina wërngal kep ak suñu kay xaliss bu màgg bi nga xamne dafa wóor gaaw te noppale fi ci bir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ci ñetti fuk ak ñeent dëkk ci biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën ci jottum xaaliss bi nga xamne kenn du ko laam saytu leen ñu ci Google Play Store wala App Store ngir mëna a bindu si suñ app bi di Supersonics Money Transfer app da ngeen mëna a ci suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics. askan wi génn génn leen ñu pengu jee fagar mooy li aar. Gambian Talents Promotion was in West African Center in collaboration with the Snohomish County Vaccine Task Force Committee will be hosting a free mobile vaccine clinic at the ICOPS Masjid in Linwood. on Saturday, June 5th from 9 a.m. to 4 p.m. We'll administer the Pfizer vaccine to you and your child, especially the age of 12 and above. Whoever gets vaccinated will receive a $25 gift card while protecting yourself, your family, and the community. If you don't have a car, we will provide free transportation within the Snohomish County. We can help you register yourself and your kids. For more information, contact us on 404 593 6215. Remember, none of us is safe until we are all safe. Gambia, Assalamu alaikum Gambia. man la de seen fashion lady bi di Mariama bi Faty fii si Gambian Talents TV anu ñu wax ne fashion dafa dee maa leen wax déedéet fashion deeyu de fashion ba tey mu ngi existe fii si biir Gambian Talents TV dinaa leen andil fashion avenue Fashion Avenue show nag nekk na show bi nga xamante ne nañ future suñu make up artist yi nañ future suñu modèle si ba si fashion designer yi tey moom suma gan bi mooy kan seen gan ah, nekkan daanaan si biir Gambia bi mooy kan Bijou Baza xam naa ne ku xamul Bijou nag dégg nga ko tey nag Bijou mooy suma ges bi toog leen fi ngeen toog rek ngeen ñun seetaan interview bu tooj xam naa ne interview bu moom dafa nar a toj du yomba kon ma dugg si biir rek ma won leen tey kuy Bijou Música Gambia gis ngeen ma fu mu nekk nii ku ma gis moom du ma xaamee mu ne ko fu mu nekk nii maa ngi taaka di fay lii yëpp moo ko def ku bëgg a look good rek ñëwal biisu baasa gis ngeen ma fu ma nekk nii bu ma doon dugg si salon bi nu ma mel ak léegi nu ma mel xaamee mos ma fa ni fu mu nekk nii maa ngi taaka di fay biisu mu ngi ni kii moo nekk CEO of biisu baasa ah. mu ngi nii mu ngi simple te nice biisu yaa ngi nice. waaw thank you so much and you are welcome. Mm. nuyu la biisu. fay naa la maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ku nekk sa tura sa santa mhm, di nuyu Gambien Talent TV tam. xam <laughs> nga ne da nga waaye nga gis waaye mada, daa fu mu nekk nii non fu mu nekk nii moom simple yow simple rek nga def te yaa ngi nice ah thank you so much mm, thank you tey nag ñu ñëw fii bisu baza nga di def make up make up artist nga bi pare sa fashion bi sa fashion salon bi lu bëri la am emulo ci make up da jay ay bagage ay dala ay spray ni fi gis ba melu melni comme bookshop ya ngi jay ay pencil bisu suñ la la ci yow sa information like sa background information yow yay kan um, bijou benn simple woman la bo xamne mu ngi trial bopam um, bijou she's just uh, normal and normal Gambian dal noonu laa ko mën a waxee Gambien boo xam ne comme mu ngi ñëfe comme any other Gambien waaw that is Bijou. mu ne that is Bijou naka la starté business bi na la ñëwee. waa business bi yàgg naa di business and this is not my first salon amoon naa saloon at Babun faati then suma papa moo ma jàppale moo ma jàppale ba lii yëpp di am moo ma di yónnee bagages and ma jël salon bi ma boole ko si. ma ne xaaral rek ma def comme nu ñëpp di def daal comme ku nekk daal sa passion la daal waaw defaru daf ma nee defar nit daf ma nee xam nga making people beautiful daal soo loolu moo tax daal lii moo indi daal Bijou Barça bii nii. wax na ko de mu ne making people beautiful moo ko nee gis ngeen ma tey daf ma def ma beautiful. Mm-hmm. yow suñu laalee ci Bijou lan moo la inspire ba nga dugg si fashion because liggéey yu bëri am nañ soo nga dugg si fashion. waaw dem na jàng naa wàcc naa waaye itam ku nekk ak lu la yàlla am jagleel mhm, dem naa collège am naa suma certificate si jàng naa business administration def naa banking and finance waaye daal dama dem ba góom ne lii daal lii la ma yàlla xiiral waaw bisu na ku ko xam dafa xam ne bisu dafa bëgg a yëfi sanse bëgg a yëfi kaf bëgg a yëfi ree to make people beautiful so bisu daal def na lii nii pour daal make people beautiful and dama fil ne kom lii jànguma ko de ma benn school jàng ko I just love it it's my passion and ma def ko so loolu moo indi this bijou baza and suma patam jàppale ma di ma yónnee bagage yi from USA then ma create salon bi by my own and that's it. macha allah li nga wax am na solo toro because ñu bëri nañ fa toog di góom ne like soo demee school ba dem college like waruloo def skill waruloo def fashion danga wa a dem toog office Ah, ngay liggéey si office bi mm. waaye macha allah yaa ngi nii dem nga school ba pare nga ñëw def lii yow looy wa ndaw yoo xamante ne dañ foog ne laay ku demul school rek mooy def skill work. ndaw yi lu ma leen mën a advice rek mooy jom mooy yóbbu nit dem school dëgg la education is waaye tam dama feel ne gëm sa bopp tam is very important and sometimes di nga dem sa yaay dina la educate sa papa educate la waaye yow tam da ngaa dem ba nga xam ne yow yow yaay mun a ñëfeel sa boppa because ku nekk am nga propose boo xam ne propose boo xam ne yàlla indi na la fii nii pour nga mun koo def mooy métier man dem naa school wàcca naa waaye yàlla mu ne métier bi boobu ngaa def so you cannot force things or dem def loo xam ne because su ma doon toog tam di toppa si suma certificate si te fekk yàlla xiiral na ma leneen du ma ko def so maa ngi advice ndaw yi képp koo xam ne bugg ngaa def skills nu mun a ñëwee salon la or anything taxut da ngaa jànga waaye still ne sa métier bi di nga ko mun because anywhere you go you waaw loolu kay dëgg la moom daf dee nekk si yow nga dee loolu am na solo trop bisu moo ko wax dee mu ne moom sanse moo ko ne te leeku ndaanu kuy sanse rek kii ngay jàppale suñu laa la ca yoo yow ah, ban iya nga dugg si ah, fashion industry bi fashion industry bi dugg naa fa ay 2010 time boobu noonu maa ngi liggéey at Galp petrol station si si head office bi waaw yaaga naa di dem Sénégal di dem si Mali si booda bi di ñëw di duga daal si yëfi fashion di dem di indi bagage yooyu noonu waaw si laa ko start. Mm-hmm. dafa mel ni yow fashion si deret bi la waaw xam suma yaay ne dafa bëgg a sanse. <laughs> mu xam yaayam rek dafa bëgg a dafa mel ni sanse bi da ko inherit rek. waaw moom dama ko inherit. Mm-hmm, ko inherit ba si suma maam ma <laughs> mm-hmm. yu jongo yu jongo ma laa am. Ah, waaw waaw ñëpp a mun a sanse ñëpp a mun a sanse soo man tam ma juddu rek toppa si seen tànka yi ku la gis na xam ne ne Bijou dafa mun sanse te Bijou sanse la moom lii rek la rek te bu nice thank you ah léegi suñu laa laajte like business bi noo ko gisee naka la nekk di demee like fashion si Gambia bi ndax nit ñi dañ na dee jàppale nit ñi dañ dee ñëw make up waaw ah fu mu nekk ni koy moom damaa wax ne maa ngi sant yàlla parce que nit ki su lu nekk rek danga si war a sant yàlla ayda yaa ngee dem te nit ki tam gëm sa bopp tam dafa important waaw dara startut mu yomba you start from zero and from zero to hundred so ñun ñëpp ñu ngee try pour seet ndax dugga si lii ñu gëm si suñ boppa ne ñun dañ si génn fashion in the Gambia is a little bit slow utee na ak yeneen comme yeneen dëkka yi soo demee nu fashion mel ak yooyu noonu waaye tam ba tey ñu ngi sant yàlla because Gambia lañ dëkka and we have to support our country we have to love them and su lu ndaw lu ñoo ñëw rek with the little gesture they are coming with ñu ngi leen di appreciate torop waaw nit yaa ngi ñëw ñu ngi make up si ñu ngi ñëw ñu ngi happy suñ customers yaa ngi happy yow sax boppa ay gis ne happy nga waaw with the make up waaw man kay kontaan naa man ku ma gis na la xam ne ne fu mu nekk nii kontaan naa mm-hmm. ñu bëri dañ dee wax ne like ñeneen dañ dee dem make up school ñeneen dee toog jànga make si kër bi ak yooyu noonu mm. yow suñu la laajte yow foo jàngee make bi. am comme lu ma waxoon Aliya rek make bi jànguma ko dama ko yaaga buga suma ñoom yaay bu ndaw ñu ngi fii si ñoom ñëpp laa nekk di droye seen kanam yi rek di leen make rek waaw ba ma mun ko jànguma ko dew ma benn school pour jàng ko I just love it is my passion and foofu noonu la ma yàlla jàppale tey ma toll fu ma toll nii. waaw noo ko starté di ko zigzag si nit ñi seen kanam bi. di leen defal yu garaaw a garaaw a garaaw fii ñoom ñëpp defal naa leen fii make up yu garaaw. <laughs> nga defaral ñëpp make up yu garaaw ba tey nga nekk bisu baasa. waaw lii neex na ma ne ko lii neex na. waaw neex na trop sax sant yàlla ba mbari mm. ñu gis ne tamit fu mu nekk nii like si Gambia bi make up artistes yi dañu over bëri mm. ku nekk di make up ku mm. nekk di make up so yow noo gisee loolu noonu like naka nga dee sostener sa customers yi. Um, suma customers yi customer satisfaction. loolu laa leen di soutenir dama dee bëgg every customer bi nga xam ne ñëw nga si man rek nga satisfy and ma defaral la loo xam ne daf laa nii su ma la defalee lu la nee soo génnee si biti ah yow ku la mi comme nga ne leen bijou baza boobaa ñëpp ñu ñëw. boobu toj na bijou baza rek ñëpp ñu ñëw. waaw bijou baza daal ku bëgg lu nice rek ñëwal. ku bëgg lu nice rek nga jaasis bijou baasa moom daf laa defaral ba nga toj. soo make up bi like. tamit ni ñi dañ dee wax ne make up yi dañ cher léegi nit ñi seen make up yi dañ cher suñu laal la ci yow ñaata nga dee make up because make up dafa am difference danga dee am seet mhm. nga am simple make up nga am birthday make up yooyu noonu yow ñaata nga dee make up waaw man dama dee bu ma start dama dee make up for 200 waaw am naa tam make up for 250 300 because da nga am yéen dafa am dafa dépend si product yu ma dee use because dafa ma dee yónnee product yoo xam ne America la jógee which is very expensive en amna yo xamne ne comme dama ko dee dem tam man tam ma dem ci suma business trip ma jël si ko ma ñu ufi den ma make up waye tam su nekkee ne customer bi tam ñëw na tam ma make up la nga satisfy da nga kontan. contane su nekkee ne customer bi tam ñëw na tam mu ne ma ah dégg dégg dégg dégg am nga ñun ñëpp yu assistance sisters nga ñëw ufi, ma nga ne ma ne ma ah balal ma de li la am tam lool tam dama ko dee def waaw way not always waye dama dee make from 200 waye right now currently ma ngi make from 250 upwards macha allah loolu yow mën a trop 250 rek nga look good te wax nga ne like sa bagage yi dañ dee expensive sa pam wala ko dee yónni gis neen fi macha allah am nga fi bagage yu bëri kuy uti bagage rek bisu ngay jàppale bi su nekk nii fi a fees ak bagage yow suñu laa laajtee gëm nga ne like makeup bi tamit dafa détermine like dafa détermine si bagage yi nga amee sa makeup bi noonu la war a rafetee wala because ñeneen mun naa am doo am bagage bu baax nga def makeup nga def sa makeup bi waaye ñeneen nga am bagage bu ba te makeup bi dafa détermine like bagage boo amee mooy détermine sa makeup bi waa déedéet um, make bi dafa depend on your work and what you love because tey mun nga am benn product boo xam ne powder bi yaa ko demee jënd soo cheap waay nga make ko mu nice ba bëgg a dee because am na ñoo xam ne fii dañ am good products waaye da ngaa gis ne seen make up bi du dee um, comme du nu mu demee nu mu war a demee understand nga nga gis koo xam ne comme someone like me yaa ngi am make boo xam ne comme lii den nga make ko mu nice ba bëgg a dee waaw. <laughs> because they am different face. te ñeneen seen face yi that they rough. di nga come and make up make up do nice Nothing gonna determine people's face. waaw so I use my products because dama dee from si products yi moom laa dee use products yi ma dee use dafa depend on because yaa ngee make up not only doo mën a toog rek nga ne waaw product bii nii laay ut rek pour nit ku xees wala nit ku ñuul wala nit ku am picca picca loolu noonu yëpp maa ngi ko based on man suma own products so amee picca picca I know what to use before mala mala make up so so ñuulee xam naa ban powder laa laa usal so xeesee tam xam naa ban powder laa laa usal so it suma products yi. ñëwee rek. nu ñëwee rek. góor sa di ko beko. na ñëw. <laughs> nga ñëw si biir. waaw waaw ba makeup la ba nga nice. Mm. léegi noo gisee makeup how important is makeup like si sa sanse nit ki soo sansee defuloo makeup how important is makeup. waaw makeup dafa important si life yi jigéen parce que dañ ne ne jigéen jongoma waaw te jongoma dafa jongoma is also part of makeup. waaw make dafa important si jigéen not always ngay nekk di make up waaye tam comme occasionally xam nga léegi léegi am simple dafa nice waaye da ngaa gis ne sometimes da nga war a dem xew te xew xam nañ ne su ñëpp dem make up sooy sëy doo mun a simple nag def lip shine so make is important in the life of a woman so da nga make up sa make bu nice bu simple den nga gën a glam nga gën a glam nu ko waxee rek la make-up dafa over important soo sansee ba nga def make-up sanse bi si la di gën a génn. that's it waaw loolu moom dëgg la soo defee make nga sanse oh my god da nga dee look nice. boobu da nga dee touch laa la wax de. over nice comme ni nga nice nii rek. suñ laa la cee ndax da nga dee am yenn xale yoo fi dee jël classes like make-up ñu ñëw fii loolu dafa dee am wala. waaw dama leen dee jël dama leen dee jël dama dee jël ñoo xam ne dañ ñëw fii nii pour ñu ñëw jànga si fii nii am na kenn like Asi waaw moom dafa feebar loolu moo tax ñëwut moom daf fi di ñëw daf fi di ñëw jànga si pour mu ñëw jànga make up and jànga boppa yow yaa ngi def loolu noonu te gis na ne like youth si bëri si Gambia bi amuñ liggéey ñu ngi toog léegi looy wax yeneen uh, sa yeneen fiilo si ñu xamante ne ñu ngi def like skill work pour ñu empower youth si waaye um, dañ leen war a empower parce que ñun ñun ñi ñëpp war a jàppalante especially ñun ni neen jigéen ñi dañu war a jàppalante Gambia bi tuuti na tuuti boo xam ne suñ jàppalantee rek ñun ñëpp dañoo dem waaw war nañoo mën a jàppale eh, xale yi jigéen yi ku nekk because métier dafa important no matter how nga jàng tam nga am métier tam dafa important because you never know where destiny will take you so métier dafa important si every human being góor ak jigéen sax waaw danga nga war a am métier and maa ngi ñaan leen ñaax leen ak wax ñoom ñëpp waaw koo xam ne daal bëgg nga yëfi salon bëgg nga yëfi make up and you have that passion mun ngaa dem nga dem nga dem nga dem nga dem nga jàng nga make waaw nga dem si benn salon someone like me soo ñëwee I will welcome you wholeheartedly and ñu jànga yow tam nga am sa boppa loolu man suma happiness la waaw ndeysaan loolu am na solo torop mu nekku ñëw rek na la welcome all hearted ñu bëri ñu fi te loolu mënuñ ko nga bugg a make up ba pare bisu mu ne ku bugg a make rek ku bugg a train make up rek mun ñëw si moom mu make up loolu tamit du si ñaaka yëpp si question yi la bokk bisu suñu laa la ci nga am jëkkër déedéet waaw Bijou amoon na jëkkër waaye amatul jëkkër. Mhm. Bijou amatul jëkkër lu ma xaar ah God's time boobu lay xaar. xanaa góor yi ñeme wuñ nag. ñeme nañu waaye xam naa watu yàlla jotagut. man dinaa woo suma oncle mu apply. <laughs> waaw <laughs> waaw bu ñëwee ma read application bi. Ah, ba tey rek like ñu gis ne ne fu mu nekk nii yéen seen liggéey bi mun ngeen fii nekk ba guddi ak yooyu noonu te fuñ toll ni si jamono bi gis ngeen ne tamit like Gambia bi safatut ah, crimes yi dañ over bëri so yow gisee loolu noonu ak seen liggéey bi waaw it's very difficult because somebody like me am naa ñaari doom yu jigéen and yaa ngi nekk si salon bi comme juli bi ñu ngi fi fanaan almost seven days one week ñu ngi fanaan si bitig bi so yaa ngi fii nii si bitig bi sa xel bi du dal because of sa yaa ngi bàyyi sa doom yi at home amuloo maybe ku leen take care hundred percent because yaay nu moo def si doom keneen mënu ko waaye tam sant yàlla tam soo amee uh, family member yoo xam ne ñu ngi laa jàppale som wa som man métti na in a way waaye métti wu tam in a way waaw because léegi-léegi suma xale da nga di gis ne dama leen di yóbbu si sumay rakk yaay ñu téyel leen en xam naa ne kooku su ko fa yóbboo moom tam léegi-léegi ma yóbbu leen si seen papa so da nga gis ne liggéey bi daf dee difficult at a moment because soo gisee mu dee difficult because of um, yaa ngi bàyyi sa doom kër sa xel nekkul di dal 100% yow tam yaa ngi génn out there pour nga liggéey waaw parce que jom mooy liggéey soo so il faut nga ñëw because doo mën a bàyyi sa customer si tam xam nga nga ñun toog fii nii yaa ngi bugg a dawale fële ne le te yaa ngi am doom yu jigéen xam nga léegi dëkk bi moom dafa garaaw. il liggéey tam pour satisfy sa doom yi. pour njabooti si kër bi. waaw mun a def sa responsibility as a woman il faut nga mun a toppatoo sa doom yi xam nga xam nga doom bu jigéen rek. Mm-hmm. léegi yow looy wax government bi like si loolu noonu la lañu war a def si loolu looy advice government bi. waa government bi lu ma leen di advice mooy security mais bi suñ gënee def yi fi am um, security suñ gënee pousse security bi dina gën a baax waaw den ñu mun ñoo jàppale ñun mi nga xam ne ñun dañ dee always late because yaa ngi sometimes da ngaa nekk si salon bi ba ñaata hours yaa ngi fii nii guddi nga war a paak sa baag yi nga ñibbi ñu xam nga. so maybe sécurité bi police yi suñ taxawee si yoon bi ak yooyu noonu dina ñum gën a mun a daal ñun suñ xel daal ñun dina gën a dal ñun mi nga xam ne dañ fi dee nekk sometimes ba late hours julli or no julli dañ fi dee nekk ba late hours ay want to den nga war a tëj sa shop bi nga paak nga ñibbi ak yooyu noonu sa safety yaa ngi koo xalaat su man every time suma staff si suñu ñibbi damaa jël ay taxi ma drop ku nekk sa kër because dama bëgg suma staff si yëpp ñu safe man du ma mën a ñibbi jël temps den suma staff si and safe macha allah loolu neex na trop ñu bëri ñu ngay liggéey te duñ dee xalaat seen staff si ak yooyu noonu waaye bisu yaa ngi liggéey te sa xel bi dalut yaa ngi wax leen sa staff si balaa ngaa jëlal sa boppa taxi sa staff si njëkka ñu aga si kër bi nekk si jaama duñ duñ tamit laa ñu si sisili politics ñu si eh, politics foog ñu dugal si waxtaani politics ah, suñ laa la ci bisu yow like ah, suñ laa la ban political party nga fara wala bokkuloo si politique bokkuma si politics. waaye si Gambia bi nga nekk. waaw si Gambia bi laa nekk waaye man lu ma nekk di def right now mooy ku ñëw rek ma àndaa yow because dama niit comme Gambia bi koo xam ne ñëw nga for peace man maa ngi ànd ak yow waaw man bokkuma comme si fi politics ak yooyu noonu although su ma doon liggéey si soldaar bi but bokkuma si fi politics. yow ku ñëw rek. not ku ñëw sax exactly waaye ku ñëw pour nga xam ne yaa ngi mu ñëw pour jàppale gaan obviously damaa mun a àndaa yow waaw man su ma taxawee nag pour nekk président di ma voota waaw su nekkee ne you come for Gambia nga xam ne bugga nga Gambia da ñëw pour dimbale Gambia jàppale Gambia because man am in the Gambia so when Gambia goes wrong I'm wrong so obviously soo ñëwee pour jàppale Gambia dama laa jàppale waaw waaw votal la man maay number one <laughs> mu ne mooy number one kon yow man su ma taxawee rek nekk président ma laa def vice président. waaw yaa ngi gis bu boobaa mu neex rek boobaa maa laa bugg di make up jarut ngay dem di ut make up artist vice président ba make up président bi mu neex rek. bu boobaa dañoo nekk si state house bi di sanse rek. waaw <laughs> bu boobaa dañ ñoo dóor de <laughs> suñu nekkee state house di sanse dañ ñëw dóor waaw dañ ñëw dóor waaye naa la make up ba nga nice loolu du ñaaka tamit ñu gis fi ay xale yu ndaw yi nga xamante ne dañ leen jël def ah, def leen staff macha allah ah, ñu bëri dañ nekk si liggéey bi waaye amuñ yooyu noonu di jël xale di leen empower def leen staff du ñaaka tamit ma la cee gaay kuy biisu ba tey rek fii si salon bi ñu gis fi ay ndaw yi ñu xamante ne ñooy staff yi biisu salon bi fu mu nekk nii lu ma fa gis lu ma fa gis moo ma ne salon bi mu ngi seet bu mu ñëwee gars ñu ngi professionnel ñoom yëpp ñu ngi sol seen chat yi moo nekk seen uniforme yi ah, ma la cee rek yow na maa ngi tudd Elisabeth. Elisabeth yaa ngi nice yow da nga nice. jërëjëf. sa blague bi moo ma ne. ah bii kay moo nañ ko bàyyee noonu rek. ñu gis la si salon bi tey yow nga nekk fii staff yow Bijou kan la si yow. Bijou daal suma sista la sista bu baax la moom. so yow da nga da nga yàgg si fashion wala moo la andi si fashion ngay def make up ak yooyu noonu. non yàgguma yàgg boo noonu cause dama doon dem school. fi school la jangé man après mu ñu employé ma yow lan mo nek sa rôle fi ya di def makeup bi wala ya di fix nails yi ak yoyu non man dama liita dama makeup man loolu muy suma liggéey fi si salon bi so sha allah dinaa nga liita ma amu problème so paré rek suma paré rek man pare na di kon génne wig bi ñu start <laughs> ni ma génne wig bi start yow wala ci la day nga man ana la tuda mom blagam bi su smile rek xam naa ne caméra bi fu mu nekk nii toj na ana yow suñu laala la cee luy sa rôle man dama di liita liita laa fi di def liita rek nga di def mm. suñu laa kan bisu kan la si yow bisu suma sista bu baax la xolam set na xolam rafet na si ñoom naka la mel ngay liggéey ak bisu liggéey bi dafa yomba wala yombut xam nga ñu de dañ dee wane seen boss yi dañ soxor ak yooyu noonu so how is it ngay liggéey ak Bijou. liggéey bi yomba na trop so defee lu la sa mag wax wala lu la sa boos wax foog mu yomb ak yow waaye soo ko defut moom du mun a yomb ak yow. so yow da nga def rek mu yomb ak na yomba rek. <laughs> ok ba tey rek ñu def nii malaysia ñi tamit ñëpp si lañ bokk gis nga gee nuñ mel def ba baax def seen charge yu nice tur bi. Elizabeth waaye bébé lañ ma gën a ooyee. mooy bébé bébé. <laughs> yow suñu laa laajte luy sa rôle fii. am fii dama dee lita dama dee fixe waaw. loo bisu kan la si yow. bisu rakala si man rakal boo xam ne daf ma bugal boppam ma bisu balaa bitig bi time boobu mu ngi këram fi bopp nag daf ko yàgg a buga dafarantu nii daf ko yàgg buga damaa jógee suma kër dem këram suma demee foofu noonu dina gina un mais sam toogal ma defaral mu defal ma ba nice Suma ma suma ker ma kër su ma jëkkër sax ma ma ko gis nga ko de bisu mo gine li defal mako. yalla yàlla ñoo def nak. papam óolu ko diko xali bu baax la nit so baaxee rek lu baax ngay am papam óolu ko papam ubbil ko business bi ma ngi suma kër ma ngi febar munuma bébé mu na ko munuma jogal si febar bes bu nek ya ngi febar jogal nga ñëw fi ma nek ma ko fan munuma fi. ma ñëw munuma ne ah bitik baangi ngi ubi suma papa mako ma ma ubi ko munuma way gis na koñ bi ñëpp yow laa taana def fa soo dama bëgg nga seetal ma suma biti bi nga nekk fa loolu moo ma fi indi xale bu baax la mënoon na nekk kenn am na mbokkam am na ay xaritam ñu jàngandoo ak ñoom depuis seen time xale waaye owut kenn man la oo mën ma kaay si bitig bi soo bisu ku baax la bisu fii fii doo de xam kuy boos fii doo de xam kuy boos léegi wala sax dañ dee jaawale man maay boos bi wala keneen ak keneen mooy boos bi ko daf ñu yaatal am na boos yoo xam ne suñ ñëwee ku nekk dafa am place waaye moom xamul loolu ñun dañoo kafre ak moom doo xam kuy boos ak kuy ñun ñooy def lu nekk together fi doo de xam kuy boos alalam ñoo ko moom moom moomu ko alalam ñu ne ko moom so bisu momu birib bi sax birib bi ñu ñoo ko moom ko bisu da ngaa liggéey sax mun la tiil xaalis bi da ngaa def dara sax mun la tiil moom du ko laal to buñu ci ben bor wax diga ne yalla ku ndee ak sabamel bisu amul morom ku fi bëgg ñu ñëw tamit pour ñu ñëwal nga jànga you are highly welcome bisu ku baal xolam dafa set waaw ku baal amu ben problème macha allah yéen a dégg loolu noonu wax na yëpp si biisu soo yéen lan façon challenges ngeen dee face fii like wàllum business bi ban façon challenges ngeen dee face. am business neexut waaye muñ la rek da ko stay mu neex ëllëg mu naxari waaye dañ daa xam ne lépp yàlla la luñ am ñu xam ne lool lañ war am luñ amul xam ne waruñ ko am easy wut nag waaye business nag il faut nga muñ nga mun a dem si business bi. waaw looy wax youth yi xamante ne ñu ngi toog nekkuñ di def dara yooy yaa ngi ne fii yaa ngi jàppale sa sista bi comme noo ko waxee yeneen youth ñu si biti nekkuñ di def dara ñu toog looy wax gee am lu ma am pour wax youth si nañ jog du ko doo toog rek am lu nga war a am il faut nga jóg dëgg laa jànga nga bul seet ne jànga na dama war a dem toog office nekku ñëpp war a toog office na gaay gii na uti métier lu baax la métier naxut kenn su dul pour su dul place jàmbur sax ëllëg ëllëg mun nga am sa alal boppa wala ëllëg ëllëg nekk loo xam ne mooy jigéen du ko soo dem office ba màgget waaye am na métier yoo xam ne soo demee ba mag sax mun nga toog sa kër di ko def waaw nagaay jóg ñu dem uti métier liggéey liggéey daal moo gën nga dem di ñu may la ay léegi ñu may la gannaaw léegi ñu la ko waaye soo jógee ngay liggéey loolu sa ñaxa bopp la kenn du si saaga nagaay jóg ut métier liggéey. ah Elisabeth moo wax loolu mu na ngeen jóg uti liggéey te liggéey. loolu am na solo du si ñàkk tamit ñu gis fi ay dëkkandoori biisu kii dëkkandoori biisu la muy Brodam noo tudda man Modou Ly waaye mo pak nak mom lañ ma xamé mo pak lañ la dee oyé yo biisu kan la si yo biisu rakka la si man mu rakka bu ba xam nga ñu né olof yi ñu né xale sul loxom sété mo mëna a ndab yi si ay mag soo biisu nag si xale yooyu noonu ñi nga xamné sen loxo dafa set mom si la bokka wax dëgg né yalla té xam mu buga am respect am yar xam nga xale moom soo xamee loo bëgg nga am respect am yar wallahi dara rawut la moom nag dara rawut ko lii commencement bi la rek lu ci kanam mu ngi ñëw incha allah di ngeen ko gis mu ne lii commencement bi rek la lu ci kanam ah boobu mu doon bonkee du yomba xam na dara du ci yomba lu ci biisu lu tuuti moo feeñ lu rëy lii mu ngi ñëw incha allah nañ ñu seetaan rek lu ñooy def ci tabaski bi moo raw bitig bi yàggut bu ñoo dóor mu mel nii léegi suñ ci yàggee nag naxa la war a mel loolu incha allah dinañ ci teg suñ bot xale bu baax la dina ñëw incha allah. Hmm. incha allah ma ne ko macha allah loolu am na solo torop ñu xaar tabaski bi rek. dinañ gis luñ mosta gis xam nga korité bi gis nañ luñ mosta gis waaye bu tabaski bi nag boobu mooy raw incha allah. ndaxte business nga dóor ko within period of one or two weeks korite jot nga fanaan ah, si salon seven days loolu yombut si dëkk bi man yaaga naa man mii suma boo si wàllum façon lay yëngu xam naa ci dara lu ma xam naa si dara loolu ku set loxo rek te bugga xam lum bugga moomul lu mel noonu te bisu nag moom incha allah si kaw sa kanam rek. waaw man tailoring laa dee def di ñëw boot african and european waaye mun naa laa wax ne biiju si ñu ma motiver si la bokka tey soo déggee na si pile na si rôle bu Bari, Bari, bëri bëri ma ko si santa di ko gërëm moo tax man tam si aw ma nag finance ko financially waaye physically am naa nu ma koy mën a jàppale te dinaa ci taxaw ba si last drop incha allah. Mbadou Mbadou yaa ko dee sansel. waaw bokk naa si ñu ko sansel bokk naa si wax dëgg neex yàlla waaye léegoo moom tam mu am on idée am mu ñëw mu def te man tamit moom moo ma dee sansel. comme naka. Ah, xoolal lu nekk si bitig bi rek. ma wiire rek solu benn nice ma wiire ñu ne ma ah moo paak yow noo mel nii tey ma ne gars yi su ma raka moo amee façon sop rek foofu laa jaar rek loolu rek la yow da nga koo solal boobu mu solal la boobu neex na di passé na neex kañ moom am raka bu baax rek moo am solo dama koy solal mu solal ma hmm. yow loo advice looy advice yut si am yut si de lu ma leen a advice moo nekk ne uti métier rek ndaxte ñu ñëpp mënuñoo toog office ñun ñëpp ñoo tok am suñu business ci bopa waye ñi dañoo am ni ñi dañoo am li ñu convaincre ko ñu ndax ndaxte tay man dama am bitik awma ay kat ma jël ay kat ñew dajale leen kenen tamit nonu kenen tamit jël ñale yobu ci office non lañ mëna a Gambia kanam waye ku nekk so waxé ne dama jang dama wacc dama am certificate so dama am PhD dama war a toog office nangam wala office bu man nekk loolu mënut a possible tubaab bi si boppam dafa am métier am ba pare toog office am su doxut métier bi dox te métier nag nit ñi mun ñoo understand office yóbbuut réew kanam métier moo yóbbu réew kanam soo man loolu laa am pour advice youth si ba pare si tamit la dem play a on that soo yóbbuwee sa doom school tey gannaaw ëllëg yóbbu ko métier. mo yobbu ñaari so xelam fu mu ne fofu continue ye way bul bay sa dom mu dem school ñew tok si kër gi aydul su yagge mu dem si quartier kay bi ëllëg ak ci biram mu tie dem si koñ bi si campé bi di tay so lolu moo ñu yaaxa nag Gambia definitely métier bi dal parents yi dañ ci sagan torop torop torop torop man ay advice dem ñu engage xalé yi yut si si métier métier mo yóbbu rew kanam office yóbbu rew kanam thank you macha allah loolu neex naa dégg ku bëgg lu góor rek bugga sol african bu nice bugga a sol european bu nice mun ngaa ñëw si Mopac boo jaaree bu Mopac ba pare nga ñëw si bisu nag mu defar sa kanam bi nga gën a toj nag. waaw waaw na ñëw de moom moom ñëw rek lay def ma broda bu baax la mhm. ku baax ku ma yëg ku ma yërëm mhm. bëgg dara lu ma naxari waaw ku baax la. Mhm. météo du jeex tamit ñu gis fa suñ sista bi foog ñu lacce ko ñëpp si famille bi lañ bokk ñu gis fi suñ sista bu nice bi tamit suñ sista bu ñaawat bi tur bi kuccu laa tudd kuccu fay kuccu fay yow tee ñu fekka fi fii la la si yow bisu doom la si man man rek yaayam laa waaw yow loo ñu mun a wax si bisu kan mooy bisu a ah, bisu xale bu baax la xale bu am yar la moo tax li mun a am ni tey mu mun koo am ñu ne soo yaroo rek lu ne mun nga koo am ci àdduna déggal nañu respect nañu mu ngi wax nak lu important bi fa bëgg ga yaaga def ay makeup ay lita ñun de ci sun bopay la ko jàngee ma yaayam wax dëgg neex yaala kontaan na ci torop bem tolu fi ma ngi sant yaala bu baax te ma ngi ñaan bitik bi mu gën yokku fim em ni mu yokku bem ay am ay bitik bitik bitik. da kenn ku nekk xalé yami mu mun am bitiki bopam muna na len ko te dina ko def waaw so yow wax nga ne like Bijou dafa yaaga bugg a fashion dafa yaaga di bugg a def fashion lu mu doon def sa bopp bi daf daan lu mu ko daan def daal lu mu daan def moom si fi fashion si tey mi xale xam yow mun nga ñëw wax dara si Bijou yow yaa yaayam woo ñu rek xam naa ne merci Viviane moom mun na koo teg trop parce que loolu rek la daan def si suma boppa bi su ñëwee ma gis ma def beneen style mu ne ma fireekul mu dem jënd merci Viviane mu teg ma mu liita ma mu contrôle ma mu liita ñu mees wax dëgg yàlla li mu wax moom dëgg bu wér kéng la mais nag moom man nag laaj ko ma ko waaye Bijou tax ma laaj ko. Mm. dina ma forcer bàyyi force. Mm. kaay ma make la kaay ma fixal la xeef kaay ma fixal la nails wax dëgg neex yàlla loolu moom daf ko bëgg a depuis bi mu nekkee xalel mm. fekk mu ngee dem school sax dafa bugg a yëfi make-up yëfi lii tax su tey su demee ba lii am bettuma ci moom waaw. moom. affaire affaire yi defaru bi affaire yi sansa bi dafa yaaga si dara bi la nekk wala si famille bi. <laughs> waaw si bi la nekk parce que yaayam bugga na sanse trop ku xam yaayam rek xam ne lu lu baax rek lay def bëgg na sanse trop te bisu tànka yooyu la jël bisu ku ko ji sax dinga nga xam ne dafa bëgg a sanse waaw waaw te sanse yi rafet lay def. lekkul naanu sanse rek lay def. <laughs> daf dee sanse nag te sanse yi moo sanse tamit nice na trop. càmmiñam bi mu pak tamit ah daf ko dee essentiel parce que léegi léegi ma gis mu style you nice mana ko ah ku la bi mu ne mo mu pak ya gana torop nak ak mu pak mu ngi koo ñawal mu ngi koo sansel moom su soluté dara sa solé jin ak top sa sanse na. Mhm. ku wax mu pak rek wax bisu. <laughs> waaw ku wax mu pak wax bisu <laughs> mota bi mu waxee ne am daf ko ibel boutique bi mana ko ah santa yalla trial nga gur parce que ya ngi family bo boo xam yaay sen mak yaay papa yaay yaay foo jaar nga takka sa ndiga nga jàppale ñu nekk sa gannaaw dafa métti nag sa yaay dem bàyyi la ak njaboot te nga nekk xale bu ndaw waaye maa ngi sant yàlla bu baax am na jom am na fayda lu rek sant yàlla la ngi jàppale ñëpp di ñun rek ñi ci biir ak ñi ci biti ñëpp fii ku fi ñëw soo amutee loo meko boo sax daf laa nga dem ndax su beneen yoon yi nga ñëwaat gis naa ko ci bitik bi so ma ngi gërëm yalla di gërëm tam staffam yi yëpp xale yi ñoom ñëpp xamna leen ñu jàppante ñoom ñëpp ñu melni mag ak raka wax naa leen bitik bi bu leen fogné bijo ko mom yeen ñëna ko mom bijo mun na tok bi am benen bitik ba leen fi ngeen def seen own business lool yëpp mun na am di gërëm tam papaam parce que so gisé li yëpp am mom la munoon naa toog fi mu toog bijou bijo fi waaye gis na né yaayam nekku fi te moom mooy yaayam mooy papaam mu ngi koo jàppale bu baax a baax a baax maa ko ciy gërëm moom tam bu baax taxaw na taxaw bu baax pour doomam bi waaw. macha allah yéen a dégg loolu noonu loolu yëpp kaddu yu rafet yooyu noonu yaayu bisu moo ko wax jom moo tax ba mu àgg fii tey bisu yoo nag nga fii tey ñu ñëw interview la. am feel na very happy over excited and maa ngi sant yàlla suma njëkk a kaddu mooy maa ngi sant yàlla bu baax a baax baax a baax a waaye tam suma bi itam maa ngi koo gërëm ma tam ne suma yaay bu ma jur mu nekkoon fi tey ba fekkee lii nii yëpp parce que soo gisee lii yëpp di am moom moo tax parce que jom bu mu def si man so maa ngi koo gërëm maa ngi koo santa aw ma dara lu ma leen wax ñi ñi fi nekk ni ñëpp kontaan naa kontaan naa seen kàddu rafet na kontaan naa kontaan naa kontaan naa. ko liggéey moo tax ñu wax ko. waaw. xam nga ne yaa gëm naa ko kay gëm <laughs> naa ko bu baax a baax a baax a baax a baax a parce que yombut waaye ñu ngi sant yàlla ba mu bari. ñu gis na ne tamit sama kopp bi moom car macha allah nice na trop si rootu ndewenal bi da nga suñ kanam yi moom gis na rootu ndewenal bi sanse yuñ def ak suñ kanam yi bisu moo si jaar xaw ma ndax xam ngeen ko rootu ndewenal ku nekk yaa ngi nice yaa ngi nice suñ makeup bi rafet yu noonu te tamit nga ñëw jaar suma kanam yi nii jërëjëf bisu. am ñoo ko bokk and you always bijou Jubaza's fashion and salon. lay wax customers yi. customers yi lu ma di wax gudu di len gërem first of all suma customers yi yeb they are very beautiful di len gërem ba paré ma ngay gërem customers yi tam ma wax len ne leen tam ñu ñëw si Bijou Baza's salon ma défaral len bañ nice ma gay happy man tam ma happy because man suma customers yi suñ satisfy rek mm -hmm. waaye Bijou Baza emut si make-up rek bisu Baza fashion gis nañ fi daala lu ne soo mun nañoo round nga wan ñu daala yi ak price yi ñaata nga dee jaayee pour ñu bëgg a rek ñu nekk fii Bijou Baza fashion lañ wax Bijou gis nañ ne emuloo si make-up kese lii yëpp ngay def mm-hmm. waaw lii yëpp laa dee def mooy kom bagage yu ma la doon wax ne la suma pa moom ma ko dee yónnee from USA mm-hmm. so bagage yi sa pa la ko dee yónnee good products ñu gis fi ay yére yëre góor yi waaw dama dee am yëre góor dama dee am yëre jigéen tam mhm, dama dee am ay diw spray shampoo conditioner saabu toothpaste toothbrush darab piis yëpp li waaw yëpp laa dee jaay trainers pour jigéen ak góor yëpp dama ko dee am sweatpants yëpp dama ko dee am. gis fi ay daala tamit daali góor yi. waaw dama dee jaay tam daali góor dama dee am second hand dama dee am tam US waaw yooyu yëpp dama ko dee jaay tam. Mhm. fii moom ku bëgg a sant rek na ñëw. du jigéen du góor. du jigéen du góor du xale du du du du du mag ñëpp ku fi ñëw rek am nga dara si bitig bi fii nii pour nga sol. Mhm. macha allah loolu am na solo trop ku bëgg a rek nga ñëw si biisu baza. waaw nga ñëw si bisu baza mu defaral yu baa sansel la make la waaw ba nga nice waaw nga dem sax anywhere occasion boo bëgg a dem. mu mhm. bëri xam naa nañ bëgg a ñëw bisu baza waaye du ñu xam bisu baza fan la nekk. wax wax ñu bi ak contact bi. waaw Bijou Baza fu mu nekk suñu kër at Westfield former suñu kër at Westfield foofu noonu la nekka bul faale ba xam naa ne most of the people ñoom xam nañ ko waaw two shop after bul faale rek den nga am Bijou Baza's fashion and salon shop am bi. bu mm-hmm. ñu contact nañ la ca Bijou Baza naka laa ko amee su ma bëggee make su ma bëggee jënd bagage. waaw contact bi mooy am 711 9772 oo nga def 3860335 waaw Bijou Bazar pour nga mun koo jot. waxaati am na ñoo xamante ne suñu noppay baaxuñ de. waaw 711 9772 boobu mooy Africell bi nga am Qcell bi that is 3860335 waaw mun nga fa am am Bijou Bazar fashion waaw. yow ku la oo rek am bisu base ñëw mu defaral la yii nga sensé ba baa gis nañ fi ay saabu ay spray yu cher mhm, waaw dama dee am shaving cream dama de am saabu dama de am diw coco butter palmas dama de am tint yooyu noonu yëpp suma boppam yaa freshener mouthwash dama dee am trainers dama dee am shampoo conditioner yooyu noonu yëpp suma boppam moo ko dee yónnee from the USA then maa mun ko jaay fii nii indi good products and sometimes su ma gisee tam um, yenn products because man tam dama dee search products yi so da nga dee gis ne su ma gisee ne product bii nii is very dama dee wax suma pane ko mu yónnee ko dañu jaay ko mm-hmm. macha allah ku bëgg a sol lu good rek ku bëgg a sanse soo sansee ñëpp ñu ne la foo sansee ñu wat si bisu base da la sanseel banga nga toj laa la wax nii waaw waaw soo ñëwee moom dama la sanseel ba nga nice waaw nga dem mm-hmm. ñu am classe laa wax de fii du <laughs> góor yi ñooy suma waay de jigéen yi moom ñu ngi si wàllum make bi waaye man góor yaay suma waay waaw ñoom ñooy suma waay mm-hmm, te dañ dee ñëw moom sant yàlla ba mu bari ku bëgg a lug góor ku bëgg a sant ba nga naayis ñu wel si bisu baasa bisu li sa am suma mujjanteli kaddu mooy maa ngi sant yàlla di sant yàlla di sant yàlla sant yàlla ba bari and ma jëlaat suma kaddu bi ma delloo ko suma papa bi nga xam ne tey lii yëpp moom moo ko waral maa ngi koo ñaanal fan bu gudda di ko ñaanal wér gu yaram parce que easy wut ñu bari tey am nañ fi papa waaye tey sa papa su la liñ dee wax ne ñu ne eh, liir su parents si jàppee si mbaga bi rek mu yomba suma papa defal na ma loolu noonu won na ma jom waaye maa ngi gërëm koo xam ne tey ay wish ne tey mu ngi fi mooy suma yaay mu manqué ma torop torop torop torop torop ma nekk benn doom bu jigéen mu bàyyi ma ak five raka ma di leen gërëm di ko santa fooy foofu mu neka yal na fa yàlla wàccee ndox bu sedda yàlla xaaree ko arjana yàlla may ko ba tey ñun doomam yi yëpp lu mu mbébét si ñun yàlla defal ko ko man koo gërëm man koo santa su ma ay wish ne mu ngi fi woon mu tey mu gis ne mag naa bay tey may am jom bay def li maa def nii man koo gërëm man koo ñaanal fu mu nekk noonu de te man maa ngi ñaan yàlla ma taxawlu suma rakay be tey lépp luñ bëgg si àdduna wala lépp loo xam ne suma yaay bëggoon na ko si ñun rek mu defal ñu ko waaw maa ngi suma papa di gërëm suma yaay I am very proud of my parents thank you. macha allah jërëjëf. ma gis fi suma sista bi kii moom suma former schoolmate la ma ne ko suma former schoolmate la ñoo dajee fii waati moom moo nekk si gannaaw jaay bi moo dee jaay bagage yi fashion yi noo tudda Kumba Bob. fii ñu fekk la fii si fashion shop man si wàllum jaay bi laa nekkee. yow bagage yi fan lañ dee jógee suñu laa cee. am bagage yi ñom ñi ngay joggé USA papi bizu moko dé indi. sama naka jaabi customer si dañ dé ñew ya customer si dañ rende ñew ya am customer si ya, dañ dé ñew da nga dé satisfy customer ya ya ya yaa dé def lolu <laughs> mu dafa nice mu ngi ré rek ya, ya. ya yo lan nga ñu mëna ba si bisu kuy bisu si yo. am bizu danaka sister la siman bizu bisu daf ma gis bugal ma bopam so aw ma dara lu ma ko wax di ko gërëm parce que tey di bi ma jeexalee school maa ngi te doon tëju kër rek nekk benn place mu kool ma mu ne ma bala ngaa nekk si kër bi defuloo dara ñëwal fii at least di nga mën a jànga lu bari fii so bisu ma dara lu ma ko wax di ko gërëm xolam dafa set ba yaatu lañ parce que comme bébé nu mu ko waxee rek soo dugga si fii doo xam kuy boos parce que dangaa ñëw fii nga fekk ñun ñëpp ñu ngi fii ca ñu ngi wante baa bi sax dañ dee surprise xale yi sax dañ gis bitig bu am fii si Boulevarre parce que dañuy nekk di riite wante fi so dafa down to earth loolu laa ko waxee so baax na torop xolam set na daal loolu rek laa am pour wax. loolu neex naa diga torop yow sa mujjanteeli kaddu looy wax youth si yow yaa ngi ni tey yaa ngi fi yaa liggéey yaa ngi am bisu mu la offer pour nga ñëw liggéeyal ko fi yow looy wax youth si yoo xamante ne ñu ngi toog bëgg ñoo def dara teyal yow looy wax ñooñu looy advice suma moromi yuut si daal comme ñu jóg parce que nekkul jàngam moom yàlla ku nekk lam ko may so daal nekkul ku nekk moo war a toog si office so dañ war a jóg ñun ñëpp ñu jàppalante ñu nekk benn. jërëjëf comme ni ma leen ko waxee rek man la seen fashion lady di Mariama bi Faty fii si Gambian Talents TV wax naa leen naa leen andi fashion avenue show fashion avenue show nag nekk na show bi nga xamante ne ba suñ make up artist yi suñ fashion designer ba suñ models yi tey nag suñ gan bi seen gan bi muy Bijou Baza dégg ngeen Bijou lu mu wax ak Bijou lu moo def gis ngeen make up yooyu noonu ak bitig bi nu mel staff si ñëpp ñu ngi réglé ku bëgg a am Bijou rek wala ku bëgg a sensi ana góor yu yu uti jabar nag soo bëggee am jabar rek nga ñëw si Bijou su la sensali rek da ngaa am jabar Bijou daal loolu la wax ak ñu bëgg a seen kanam yi like jigéen yi laa wax de jigéen yu jongoma yi ngeen jaar si biisu mu defaral leen ba ngeen nice soo soxlee biisu rek mu nga koo call si 711 9772 sorry 711 9772 wala 360 0 36 386 0335 386 0335 ngeen ñëw fii si biisu baasa mu defaral leen ba ngeen nice soriwut nag Westfield fii la nekk si gannaaw fomb suñu kër bi rek soo leen fa àggee ngeen call Bijou Basse ngeen ñëw mu defaral leen ba ngeen nice bye bye. soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal kepp Supersonix money transfer ñu ngi ci ànd ak yéen. ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong bekkooy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ñett fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir joxleen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics. Ambient Talents Promotion was in West African Center in collaboration with the Snohomish County Vaccine Task Force Committee will be hosting a free mobile vaccine clinic at the ICOPS Masjid in Linwood on Saturday, June 5th from 9 a.m. to 4 p.m. We'll administer the Pfizer vaccine to you and your child, especially the age of 12 and above. Whoever gets vaccinated will receive a $25 gift card while protecting yourself, your family, and the community. If you don't have a car, we will provide free transportation within the Snohomish County. We can help you register yourself and your kids. For more information, contact us on 404-593-6215. Remember, none of us is safe until we are all safe.